ci loolu nga tàmbalee ñu jëm ci investiture boo xamante ne dans quelques heures mun nañu wax ne si lañ ci euh, dugg muy ñu tabb ki nga xamante ne mooy lu président de la République euh, du Sénégal muy euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci loolu jël nañu saal fas yéene ko ko fee defee mais man sama laaj bu njëkk dañu ne rupture ne folklore dootul amati mais à quand la ñuy départir également ci yi nga xamante ne la ñuy suñu président yi suñu falo ndax bu fekkee ne tey jii dañu ne il faut ñu dessiner waat benn histoire bu yees pour Sénégal et également rétablir la vérité yooyu ñu leen di ngàll caq yooyu ñu leen di taqal ak yooyu c'est ce ne sont pas nos réalités tey jii tey yow en tant que enseignant également lan ngay wax ci fànn boobu. waaw jërëjëf euh, soxna Awa Diop euh, jàpp naa ni euh, débat boobu gis naa fan yi mhm. mu jóg Sénégal maanaam ñu posé débat est-ce que sunu njiitu réew dafa war a ñëw euh, buy waat ginnaaw bi ñu ko falee mm-hmm. ñu koy takkal caq boobu nga xam ni euh, président yi fi jaaragun yëpp bi ñuy jiite réew mi da leen koo takkal mm-hmm. loolu nag li ma ci wax mooy man su may wax sama waxi bopp parce am na ci yoo xam ni samay position yi bopp lay doon yoo xam ne dinaa ko wax te lu ma gëm lay doon mm-hmm. Euh, loo xam ne tamit coalition bi la concerné wala candidat bi la concerné li ma ci xam dinaa ko ci wax mais ci mbir moomu débat bi nga xam si moom lañ alimenté fan yi man jàpp naa ni c'est c'est intéressant euh, ci benn wàll mooy sénégalais yi kon commencé nañoo gis ni ñun li leen jaay mooy ñun dañu nekk le camp souverainiste la camp panafricaniste te daañ ñëwaat xëy na ci poñ yu bari yoo xam war nañ ko waxtaane tey oui mais président de la république bu Sénégal Sénégal ab république la te ni ma ko yàgg a waxee am na ñu ko wax tey te d'accord naa ak ñoom la république est maçonnique mhm. loolu mooy dëgg parce que am na yaa des questions yoo xam c'est des questions qui mais c'est ça la vérité aussi mhm. la république est maçonnique te dañ ko hérité président Bassirou Diomaye Faye nag mënta ñëw tey di oui bu ñëwee ñu fal ko ci république bi. moom ni daan fale yeneen président yi ni leen daan euh, taqale caq bi noonu koy taqale incha allah suba. ça pas dire que dafa ànd ci loolu wala ànd ci loolu beneen débat la. mais comme moom ci république lañ nekk boo xam ni dañ koo hérité ci sunuy président yi ñoo fi jaar la république est maçonnique. Euh, loolu jàpp naa ne bu ñu demee ba war koo waxtaanee bu dee war na ko man jàpp naa ne war na ko parce que ñun waratuñoo wékku ci France ak li mu fi bàyyi continuer nga xam si président yi fi jaar yëpp loolu lañ doon def. man li ma gëm mooy dina toll moment boo xam ne dañoo war a toog waxtaanee waat suñu réew. waxtaane waat suñu réew ci lépp parce que ñun dañoo yor programme bu ñu bu ñu bu ñu jaay sénégalais yi ñu jënd ko. Mm-hmm. di xool nag ñun ndax daañ ko doxal. Mm-hmm. léegi nag loolu ñu jaay sénégalais yi ñu jënd ko. da cee bëri beaucoup de questions yoo xam si moomaat sa bopp def ci bokk mooy bu ñu xoolee li ëpp ci li ñu jaay sénégalais yi mooy dañu bëgg moomaat suñu bopp maanaam moomaat sunu xaalis naam am na ay complexe yu fi posé benn débat xëy na mun nañ ci ñëw ci biir waxtaan wi mooy la le débat sur la monnaie. Mhm. ñu dégg ci lu ne mais ñi ëpp ñi ciy wax c'est des complexes nga xam ñoom lu ñu gëm mooy lañ ñu doon def di noot suñuy président ak suñuy maam ba léegi. Mhm. loolu lañ bëgg ñu wéyal ko ñun gëmuñu loolu. beneen bi mooy li nga xam ni moom moo fi am ci république bi ni muy doxe yu ci bëri sukkandikuwuñ ko ci sunu aada ak sunu cosaan ak sunuy ngëm-ngëm parce que ñun dañoo am sunuy mhm. te ñooñu sampoon république bi ñoom ñi ko sampoon ci seen ngëm-ngëm mooy mooy seen athéisme bi ñu gëm nga xam ne ñoom dañoo gëm ne yàlla bokkul ci dara loolu lañ sampe seeni république mhm. comme nag ñoom noonu lañ ko sampe te ñun dañoo gëm ni day toll moment boo xam si fokk mu am rupture ñu toog waxtaane waat suñu réew ñoo moom sunum réew suñu neexee ñun war nañoo toogaat waxtaan soppi waat suñu réew ni muy doxee d'accord kon nag loolu àggagun ca uh-huh. mais ñi naan Bassirou Diomaye Faye warut a dem ñu koy taqal caq bi uh-huh. ndaxte caq bi signe maçonnique la uh-huh. ils son raison signe maçonnique la mais Bassirou Diomaye Faye dañ koo fal ci république boo xam ne noonu lay doxee bis bu sénégalais yi bëggee soppi loolu nag lu ñuy toog waxtaanee. d'accord tey euh, en tant qu'enseignant en tant que professeur Dame avant ñuy xuus ci waxtaan bi di jox suñu naataango yi l'importance li nga xamante ne moo di prestation de serment parce que dañ na laan nga sàmmoo ak li nga xamante ne moom nga waat ne da ngay servir le peuple mais gis nañu ñi ñu jiite ñëpp boobu ba léegi ñu ciy waat te day mel ni waat gi parjure lañ ko mën a tuddee. ndax jëfeewuñu li ñu waat. waaw loolu xam nga lu ko waral parce que ñun. ñi fi ñëw jiituñu fi yëpp nekk fi ay président de la république dañoo na dañoo ragaloon a poser le vrai débat mooy ñun ñooy kan est-ce que noonu ñuy waate waat boobu moo baax xam nga tey soo xoolee aux États-Unis bu ñu la falee mm-hmm. da waat ci diine bi nga gëm Sénégal boo ko waxoon ay complexe ñooy taxaw naan la non la Sénégal est un état laïque ñoo que ñoon c'est des complexes ñoom gëm ne laïcité mooy absence de diine maanaam diine bokkul alors que laïcité du loolu laïcité mooy yow nga am sa diine gëm ko mhm. keneen am diine mu gëm ko keneen am gë am position ni man gëw ma ci ñaari diine yooyu benn ku ci ne ñu bàyyi ko mu doxal lim gëm loolu mooy laïcité maanaam kon ñun danoo jàpp ni euh, ni nuy waate baaxul lool moo tax kuy waat bu fekkente ne yow li ngay waat nga def ko nga ñàkk koo def gëm nga du la yàqal dara parce que waatoo ni nga war a waate waat googu amul njariñ mhm. ñun dañoo gëm ni dañoo war a toll foo xam ne nit dafa war a waate ci li gëm parce que su fekkente ne da ngay waat ci loo xam ne ay phrase la yooyu wax nii rek yoo xam ne tegul ci lenn ñu teg ngëm gëm gi nga xam ne moom nga waroon a waate nga tege ko ne mais loolu ngay waat doo ko doxal bu la neexee mais soo xoolee aux États-Unis boo faloo nekk chrétien dangay teg bible bi nga waat soo faloo nga nekk musulman da ngay teg euh, alxuraan bi nga waat mais lu tax Sénégal mun ko def qu'est-ce qui de poser ce débat pour réformer nos institutions réformer notre Euh, euh, état ba képp ku fi falooti dañ naan waat gi lii ngay wax te li ngay waat da nga koy waat ci sa ngëm-ngëm. d'accord mais loolu nag parce que ngëm-ngëm mooy nit nit boo dindee ci moom ngëm-ngëm dara desu fa. d'accord kon nag loolu moo tax li tax ñi fi jaaragun yëpp li ñuy waat ak la ñuy def dara bokk ci parce que président yi fi jaaragun yëpp boo xoolee lanu waatoon bu ngeen fàttali ko Macky Sall mii di dem ba muy waat lu mu waxoon gestion sobre et vertueuse moo nekkoon la gënoon a fës ci discours am est-ce que def na ko fi la patrie avant le parti mhm. du yooyu la waatoon ne moom la fi def est-ce que def na ko ñëpp gis nañ ni il a tout le contraire de li mu waatoon ci douze ans yi waaw kon nag jàpp naan ni ni ñuy waate baaxul mhm. te ni waate bu baaxul nag ku ñëw di waat nu la neexee parce que doo taxaw mais jàpp naa ni ki nekk ab chrétien taxaw teg loxoom ci bible waat ne moom lii mu teg loxoom te loolu mooy ngëm-ngëmam loolu mu waat dina ko sàmmoo ak waa réew mi jàpp naa ni lu mu fu mën a tool dina xalaat na nam taxe woon waat ak waa askan wi ki nekk jullit euh, euh, euh, musulman également teg loxoom ci alxuraan waat kooku tamit dina fexe ba sàmmoon teg loolu parce que day xam ne loolu muy waat ëllëg da ciy rendre compte mhm. mais ki nga xam ni moom liñ ko waat loo amul benn mbir bu ko ci tënk mais su ko neexee waat ba noppi def lu ko neex loolu moo tax man jàpp naa ni ne waate baaxul euh, malheureusement comme ni ma ko waxee ci li ma doon wax ci caq bi ak waat gi. Mhm. Bassirou Diomaye fay phrase boobu muy taxaw waat ci kanamu saage moom lay defaat. Mhm. comme ni ko Abdoulaye Wade defe woon Senghor defoon ko abdu Diouf defoon ko moom euh, Macky Sall defoon ko moom la Bassirou Diomaye Faye nar a def demee mais nag liy wute mooy Bassirou Diomaye fay waat gi muy waat du yem ak yeneen waat yi. Mm. parce que Bassirou Diomaye Faye bokkul ak ñooñu. suñ ko waxee nag nit mën nañ la non non mais président yi fi jaar yëpp loolu lañ daan wax mais ñi koy wax dañoo desee xam pour la première fois au Sénégal ñu fal ab président boo xam ne bokkul ci système bi ñoo ñu daan waat ba nëpp dégg ni gëm ni li ñu waat daañ ko doxal ñu doxal leneen ñooñu c'est parce que c'était des éléments du système mm-hmm. guléet nag depuis 1960 président yi fi jaaragun yëpp ci système bi lañ bokk lan mooy système bi parce que dégg naa ñu naan non système bi mooy ku jaar di eh, impôt et domaine jàng fa yow yaa ngi système bi dégg naa benn chroniqueur wax la man ko loolu du système bi système bi d' abord du question de nit mais ay doxalin la yoo xam ne dafay ancré au Sénégal depuis ñu jël suñu indépendance wala suñu pseudo indépendance parce que indépendance bi ku ne xam na ni ab indépendance sëlëm sénégalais la waaye indépendance boo xam si moomaloo bopp sa bopp dara dogalaloo sa bopp dara. lépp looy dogal dañ la ko dogalal ñëw ne la jaaral wii yoon nga jaar fa kooku boo gëmee ne am nga indépendance naxoo kenn sa bopp ngay nax d'accord kon nag man li ma gëm mhm. mooy euh, li nga xam ne moom moo am euh, mooy changement bi sénégalais di xaar lu tax mu mën a am mooy gulet ñu fal un élément hors du système mooy koo xam ni nekkul parce que ñaari système rek ñoo jiiteegun Sénégal mooy les socialistes et les libéraux socialistes yi ñoo fi def quarante ans am ñaari président ñan ñoo fi euh, euh, ñan ñoo leen fi wut les libéraux ñoom def fi vingt quatre ans am ñaari président ñoom ñaar ñooñu soixante quatre ans yi fi def dañ koo def ci ni ñu leen euh, tàggate par rapport ak ñoom ñëpp ci intérêt France ak intérêt France Afrique ak intérêt réew yi nga xam si ñoom ñoo am doole te di noot réew yu ñàkk fayda yu mel ni réewu senegal donc nag loolu mhm. moo tax ñooñu mhm. nin doon xalaate te yem ak Bassirou Diomaye fay Bassirou Diomaye Faye bokkul ci ñooñu comme le président Bassirou Diomaye Faye dafa nekk moo taxoon xeex bi metti sax d'ailleurs su ngeen xoolee su tax xeex bi metti woon pour ñu jële fi système bi mooy guléet am ab candidat bu song système bi gagné ko. dinañ ñëw ci système boobu gën ko yaatal. loolu euh, jàpp naan daal waat gi am suba incha allah dina waata dina wuute ak waat daan am. Euh, ñu nuyu Aliou Sow avant ñuy euh, enchaîner na namoon nañ la tout le monde demandait après toi foo nekkoon. dama doon noppalu. demoon Touba. Mm. gis sëriñ bi. et puis nekkoon ci ay bagages. d'accord waaw maa ngi doon euh, kii euh, xool ñoom dàmbooj li ñuy def. Mm-hmm. ak lan la ñu nar. Mm-hmm. <laughs> ce sera un plaisir c'est un je suis très content de le retrouver inchallah pour échanger ak ñoom ci. on va échanger maa ngi bu wér sama gars yi. Uh-huh. Uh-huh. yéen ñëpp ku lim juum yàlla na leen yàlla sàmm. allahumma amiin. Euh, ñu jox kàddu pour les séries de questions. oui uh -huh. je pense que abordé nga sax fi ñu fi a commencer.